Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Mm, mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel te di leen ziar ñu ngi baalu ñepp xaq di baal ñepp xaq di ñaan yalla na boole ñu baal am na yàlla nangul ñu bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw lolu kaddu yi ñu yëkëti kaddu la yoo xam ne e, kaddu yi andi ay leeral la waaye tamit andi ay jubbanti ci ay kaddu yoo xam ne dégg nañu ko. mu génne ci koo xam ne boroom xam-xam la boroom xam la ci réew mi eh, nga xam ne sax ñun dey séentuwuñu woon wala taamuwuñu woon kàddu yu mel noonu di génn ci jëmm yu mel noonu eh, kon sax li ñu gënoon a taamu sax mooy seeni njaboot di leen moytuloo média yi ak réseaux sociaux yi nga xamante ne dafay tasaare yenn wax yi ndax dafay jur ay sikki sàkka di jur ay yàq-yàq ci diggante ay nit loolu mooy lan mooy dafa am ñoo xam ne dañoo gis weer wi wori samedi am na ñoo xam ne sukkandikuwuñu ci loolu ñu ngi wori dimanche comme ni nga xam ne noonu la ñu wooree woon daa ñoo xam ne ajjuma la ñu wooroon ñenn ñu woor samedi léegi nag kon boroom xam-xam bi nga xam ne dafa taxaw wax ne ki wori euh, samedi dafa war a fay bis ndax lu tax mooy jamono ji muy gis weer wi jamono ji ñu wax ne gis nañ weer weeru nekkul ci jaww ji euh, dama leen di dégtal ñu déglu limu wax ci lamiñu bopam ba paré mo sok ci continuer inshallah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ابني العزيز مختار جاندنا نص بما يوني مدرتي مركز الفلك الدولي سنجيت محمد شوكت عودة وانا من تلفون تي ci guddik alxames xanaa alxames ci guddi déedéet alxames ci guddi wala déedéet ajjuma ci guddi ajjuma ci guddi ba sedd samedi la moo dama laaj iidu iidu fettal ci Sénégal léegi waaye ñoom lii ñu wax nga xam ne dañoo wax ne ñu gis lu leen di nuru weer xaj nañu gis kaw ko basal rosaare waaye weer wi moom bu jant bi so fekk na mu suux ba pare ba tax na ñi dog ba ñu woor samedi dañoo juum ñi woori samedi dañoo juum loolu mu wax mooy li nga xam ne adiinu llaha bi alladi adiinu llaha bihi te maa ngi koy maa ngi koy wax te kaw képp kuy képp kuy ab jullit te wéen itteel ko ci wax jële bokk li nga xam ne addiinullah bihi yawm alqiyaama mooy ñi woori wala ñoo fay ci Sénégal gépp gépp ci dëkk Sénégal yépp bi jënt bi sa fekk na weeru suux na ba lu bon ba benn minute ak nangami seconde ci suuf jënt bi door a so waaw ah, tabaarakallah yaakaar naa ku dégg eh, kàddu yooyu di nga xam jëmm ji nga xam ne moo ko doon wax ndegam yàgg nga déglu ay waxam euh, bu ko defee ginnaaw bi ko euh, joxe wàccee ci wàccuwaayam ñuy wax ne kàddu yi day euh, bu ñu ko delloo ci li ñu sariya jàngal ci wàllu gis weer ci woor ak wori dañuy fekk ne kàddu yi dafa làmboo ay njuumte ci ay côté li tax ñu ne dafa làmboo ay njuumte nag dañ ci indi ak leeral njuumte gi mooy bu njëkk mooy boo ko delloo ci wàllu usul da ngay wax ne mbir boo koy àtte da ngay melal mbir ma ba pare maanaam bala ñoo benn projet benn projet dañuy wax projet bi euh, projet sàngam la ba pare ñu soog koo mën a àtte rey ku rey nit la wala affaire nu mu sëy la wala beneen affaire la ñu soog cee mën a àtte daal di mën a wax ne loi bi kat lii la wax ci ko rey wala lii la wax ci ko sàcc wala ko def leneen léegi nag loolu ci wàllu usul kon li mu wax mooy dañuy wax ne réew mi ndax dañuy sukkandiku bu ñuy àtte ci wàllu koor sunu wàllu woor ak sunu wàllu woor ndax dañoo sukkandiku ci ilmul falak nga xam ne ci la ñuy atte wala dañoo sukkandiku ci gis weer soog woor wala wori yaakaar naa ne tontu bi mooy réew mi ci lu ñuy sukkandiku mooy gis weer woor wala gis ko wari dañuy séentu daal maanaam ruya al ayn ruyatul ayn la ñuy sukkandiku waaye sukkandikuwuñ ci al xisaabaat al falakiya ndax réew yi dañoo séddale ko réew yu baree baree bari nanguwuñu séentu weer ci wàllu euh, euh, matériel yu bees yi ñuy sukkandiku ñoom sukkandikuwuñ ci ñu ngi sukkandiku ci bu ñu ko gisee madhab bi nga xam ne moo gën a siiw ci Sénégal ñu koy tuddee madhabu Malik sukkandiku naa nanguwuñu loolu boo demee ci lawal da fekk mu wax ne eh, laa bi mun a jimin laa bi mun a jimin ay laa yasbutu ramadaanu bi xisaabi mun a jimin maanaam weeru koor du sax ci li ñu tuddee alxisaab alfalaki ci ñi wax ci wàllu biddiw ñu wax ne weer wi Eh, dina feeñ tey wala du feeñ tey nee na loolu kenn du ci sukkandiku pour woor yaakaar naa ku dellu ci lawal da nga fa fekk eh, loolu may wax. léegi nag kon comme ñu sukkandiku wuñu ci wàllu woowu kon bu ku ñu ci atte da ngay juum kon bala nit kee wax ne maanaam ñi wori kat bés sangam dañoo war a fay lu tax mooy weer yu jamono ji ñu ko gis nekkul ci jaww ji te ay ñaar ñu maanu taxaw wax ko kon yow boo ñuy àtte ci loolu da ngay juum kon boobu mooy première njuumte. ñaareelu njuumte bi mooy bu ñu delloo ci sharia li mu àtte ci wàllu woor ak wori mooy lan mooy dañuy sukkandiku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax mooy xadis boo xam ne abu hurayrata nettali na ko ñëw na ci saxiixul buxaari ak muslim mu wax ne suumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gumma alaykum fa akmilu iddata shaabaana thalaathiina rawahul buxaari wa muslim yonent salaay salaam ne nangeen ngeen woor ci gis weer wi na ngeen wori ci gis weer wi bu fekkente ne nag dañ leen a muur ay niir walla eh, leneen lu mën a muur jant ba mu leen koo gis nee na bu boobaa na ngeen matale lim ba fan weer te yaakaar naa ne ñaari xam-xam yii bii dañ cee werante boroom xam-xam yi dëppoowuñ ci mooy xam-xamu biddiw ci wàllu gis weer wi woor ak wori waaye bii ñëpp ci dëppoo ci sariya mooy ñaar ñu maandu saa suñu gisee weer wi boobaa woor war na bu dee kori kori war na loolu moom benn borom xam-xam wérantewu ci ñaar ñu maandu jamaa mustafida mooy mbooloo mu bari dalee ci juróom jëm kaw bu fekkente ne wax nañ ne gis nañ weer wi kenn dootul seet ak adala mooy maandu te foofu kenn dootu ko fi seet fii ak mat nañu jamaa mustafida rek bu boobaa kenn dootul wax ñu maandu lañu dañuy sukkandiku ci ñoom pour woor di sukkandiku ci ñoom pour wori yaakaar naa loolu moom kenn benn borom xam-xam wérante wu ci léegi nag kon kenn wartu sukkandiku ci xam boo xam ne euh, ilmu zanni la boo xam ne borom xam-xam yi dëppawuñ ci ngay weddi xam-xam boo xam ne xata'i la boo xam ne borom xam-xam yëpp dañ cee dëppoo bi ñuy bi ñuy bi ñuy werante mooy ban mooy xam-xamu biddiw ndax gis nañ ko gisuñu ko fa bi ñu dëppoo mooy ban mooy gis nañ ko ak bët ñaar ñu maandu lañu boobu kenn werantewu ci kon yaakaar naa bii bu ñu ko weddee bi boobaa dafay daal di dugal li nga xam ne moo di njuumte kon yaakaar naa loolu jar naa bàyyi xel te jar naa moytu euh, su ma dellusiwaatee ba léegi ci li nga xamante ne mooy ay dalil yuy leeral ne njuumte feeñ na ci mooy ne buñ ñëwee ci wàllu xel àtteeb xel rek ci misaal benn waay bu newoon woon damaa dénk benn waay fanweeri junni ne ko weer wi di ñëw kat damaa bëgg nga joxel ma ko dépense sama kër diw sàngam laa la booleeg bés bu jot junni nga koy jox muy fan fanweeri junni bés bu ñot waa ji ñëw ñu jox ko junni ba ca ñaar fukkeelu fan ba ak juróom-ñeent waa ji ñu dénkoon xaalis bi woo ñaari nit yu maandu ñaari seede ñu taxaw mu ne leen damaa bëgg ngeen seede ma ne kii daf ma dañ maa fan fanweeri junni ma di ko ko joxeel dépense joxe naa ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci tey waaye nag junni bi ma waroon a joxe suba dama ko ciy boole tey bu ko defee tey ñaari junni laa koy jox muy fanweeri junni yu mat sëkk jox na ko ko waaja dem na ca ëllëg sa mu dellusi na ko joxoo ma ko danga mooy jox fanweereel bi maanaam ci trentième jour bi la ñëw ne ko jox ma ko parce que par bis laa la waxoon waa ñu ne ko démb laa ko mottali ndax démb ñaari junni laa la jox ñu wuute werante nañ dem nañ ci àttekat bi ana ki ñu dénkoon xaalis bi woo ñaar ñu maandu ne yéen de laa doon seedeloo démb ñaar ñu maandu seede ne démb de wax nañu ne fanweeri junni yi mu ko dénkoon jox na ko ko ba tey di ñaar fukk juróom-ñeent mu yëkkati ñaari junni jox ko ko xam naa kon fanweer lay doon mat na sëkk ñun ñoo ko seede waaw bu boobaa ndax dañuy sukkandiku ci attekat day sukkandiku ci ñaar ñu maandu ñu seede ne ne waa ji jox na ko fanweeri junni yi mat wala dañuy sukkandiku ci li waa ji wax ne fanweeri fan laala waxoon nga ma koy jox ndax ci kan la sukkandiku. kon kay ndegam jox na ko fan fanweeri junne mat na jubluwaay bi moo doonoon kon mat na kon bu ñu doon àtte ci xel dañ naan léegi kat kii joxe na liñ ko dénkoon mat na sëkk kon kii di woote lii muy woote mën naa doon lu bëgg a wax waaye kenn du ko dëggal ci loolu kon tey boroom xam-xam bi taxa wax ne weer wi kat heure sàngam nekkul ci jaww ji kon ku wax ne gis nga ko loolu mënut nekk. am ñaar ñu maana ñu taxaw ñu wax na ñoom gis nañu weer wi te sharia jàngal ñu ne ñaar ñooñu bu ñu ko waxee dañoo war a woor kon bu ñu delloo ci shariatul islam ah dañuy àtte ne kon kat dañoo war a woor beneen misaal bi moo di benn waay buñ doon séntu weer wi tey ñaar ko juróom-ñeent waa ji nee na bu ñu gisee weer wi tey baax na mais weer wi buñ ko gisul tey sama jabar fase na ah, ngoon jot na gis nañ ñaar ñu maandu ñu taxaw wax ne gis nañu weer wi wala jamaa mustafida mooy mbooloo mu bari wax na gis nañu weer wi waaye benn boroom xam-xamu buy jàngale ci wàllu biddiw mu ne weer wi c'est impossible mënul nekk weer wi kenn mënu koo gis ci jaww ji tey ndax weer wi kat suux na laataa jant bi di sox waaw bu boobaa ndax attekat bi atte ci sariya maanaam boroom xam-xam bi ñu indil masala mi ci sariya mu ciy at ndax day wax ne waji jabaram fasena na ndax li ki wax kat moy deug li wa astronome bi lim wax moy deug wala day sukkandiku ci eh, mbolo mi wax ne gis nañu weer wi wala ñaar ñu maandu ñu wax ne gis nañu Bukari wi bu ko defé mu ne waji jabaram fase wut ci kan la wara sukkandiku yeen borom xam-xam mi lay waxal yaakaar naa boo indi woon borom xam-xam juróom ñent fukki ak juróom ñent mom liñ lay atel moy ñaar ñu maandu ñi li ñu wax moy deug jabar waji ji kenn ki nag damay sikki sàkk sax ndax dina ci ànd wala du ci ànd kon kooku rek laa réservé kon nañu bàyyi xel loolu bu baax a baax beneen bi ma ciy dolliwaat ci wàllu àtte mooy benn borom xam bu ñuy wax Muhammadul Xaafid rahimahullah dafa wax ci benn xam benn mbir boo ne borom xam-xam yi dañ ciy werante mooy gis yonent bi ak ñàkk koo gis ginnaaw bi mu génnee àdduna ñi yëgatu ci wàllu tasawuf dañu wax ne dañ koy gis te mën naa nekk ay nit yu ragal yàlla wax nañ ne gis nañ ko ñenn ñi weddi ko moom bi mu ci indi ay ay lay ak àtte dafa wax ne laysa man lam yara bi xujjatin ala man raa law shahida alfu adlin annahum lam yarawu lhilaala mathalan wa shahida adlaani annahuma ra'ayaahu falahuma falahuma alxujja ala man lam yara nee na ki gisut munta am aw lay ci koo ki gis ndax nee na junni nit yu maandu bu ñu taxawoon bésu ñaar fukk ak juróom-ñeent ñu séentu wax ne gisuñu weer wi ñaar ñu maandu jóge fee wax ne gis nañu weer wi ñaar ñi maandu ñoo am aw lay ñoom la ñuy nangul bu boobaa ko dañuy wax ne koor war na ñëpp la ñuy ñëpp la koor di war donte ñi la ñu maandu lañu waaye ñii lañu ñu dëggal ndax lu tax mooy nu nusuus yi nga xam ne moo ñëw ci charia lim ñu jàngal mooy ñaar ñu maandu bu ñu gisee weeru dañoo war a woor te loolu borom xam-xam yëpp ci dëppoo kenn wutewu ci kon may delloosiwaat texte bi ci wax ne ñaar ñu maandu déclaré nañu wala jamaa mustafida déclaré nañu gis nañu weer woore nañu kon nit lu mu bari bari xam-xam bu taxawee wax ne ñi wori bis sàngam kat dañoo war a fay bis lan moo tax ndaxte weer wi nekkul ci jaww ji heure sàngam loolu laa wax ne wax jooju kat njuumte lañ koy mën a jàppee waaye duñ ko mën a taxawal. ba léegi bu ñu delloo ci euh, gëstu yi da fekk ne gis nga astronomie ñi yëngatu ci ilmul falak yi nga xam dañoo nekk ca Saoudia bokk na ci ñoom ci li ñu wax mooy weeru Ramadan ren fanweeri fan lay doon ñoom loolu la ñu wax fanweeri fan la te boo seetloo tamit waa Makka fanweeri fan la ñu woor ak réew yi leen réew yi ànd ak ñoom ci loolu. waa léegi bu bu fekkente ne ci borom xam-xam yooyu nga sukkandiku ñu ne weeru koor fanweeri fan la war a doon waa Sénégal ñoom kon nu ñuy def ñëpp ñaar fukk ñeent la ñu woor ñi woor samedi ñi woor samedi ñaar fukk ak juróom-ñeent la ñu woor ñi woor ajjuma ñaar fukk ak juróom-ñeent la ñu woor kon xam-xam boobu moo tax ma wax ne zanni la amul mia bil mia amul cent pour cent du qataa yi waaye nag nit ñi li sukkandiku pour woor wala pour wori mooy gis ci bët loolu qataa yi la xam-xam la boo xam ne ñëpp ci dëppoo te waa réew mi tamit ci loolu la sukkandiku kon nag ñi nga xam ne dañoo woor wala ñu wori ci bésu samedi sukkandiku nañ ci lu wër yalla na yalla nangul len. ñi wori ci bisu dimanche sukkandiku nañ ci seen xam-xam bu wër yalla na yalla nangul len. li am solo moy ñu bayante xel respectante kenn bañu a morom ma bu weddante amé rek njumte de dal di am surtout nak bu ñu weddee ci côté bo xamné wax ja buñ ko ci sharia dañuy fekk ne wut ak sharia kon yalla na yalla jubal ñu yalla yalla yàlla ñu dégg ak top in urid ila islah